ñu ngi lay nuyu ci turu Serigne Moustapha Mbacke Mohamed mu teg ko ci loxob jëwriñam jii di Cheikh Mouhamadul Fadal mu andi ko di ñaan suñu borom yàggal sa jëmm ji ak taxawaay bi lool di fàttaliku sa diggante ak Serigne Mohamed. ku xam démb ci kër maam soxna loo jóob xam ne mosu leen tàggoo ci lenn seen lépp di lenn loolu sëñ Fallou mi ngi koy fàttaliku bu baax saa su la gisee rek xelam ak xolam solo rek lay jëkk a tabbi saa su la Seex Musaa gisee xelam ak xolam ca loolee lay jëkk a tabbi di nuyu sa seexam ma du Mbàkke Gaynde Fatma ci taxawaayam bu rafet ak pas-pasam ak taxaw bu mu taxawu doomam jooju di seex Moustapha ak Cheikh Mamadou Fadil ak njabootu sëñ Mbàkke soxna Lo gépp muy taxawaay yu yàgg yu rafet yoo xam ne mosu caa jóg ci la nekk lii itam lim koy fàttali mooy diggante soxna Maymuna ak seex Mamadou Moustapha al Karim seen boole gu leen sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul boole Cheikh Moustapha jàpp loolee soxna May diggante bu yàgg daana wax ne Cheikh Moustapha musta xam ne sax ñoo bokk wayjur dafa defoon ne taaliba baayam la ndax saa su ko ma teral jox ko addee da ko naan sama doomi sëriñ muy ànd bu rafet bu yàgg yu bari aju ca loolee bi fi Cheikh Moustapha jóge Cheikh Amadou Mbacké Gaynde Fatma fedd li loolee jàpp ga ak taxawaay ba ak tëyee ga ngeen ne ci keppaaram yàgg sëñ Mouhamed mu yemale leen képp ngeen di ñaari ñeen si gannaawam mu sëñ Modou Mahfous mu xam seenu àdd ak seenu bennoo loolee itam ci taxawaay ba Cheikh Ahmadou Mbacké liggéeyal soxna si liggéeyu barab bii fi nekkoon ba soxna si féete fi muy liggéey bu yàgg loolee itam musta dañ mukk diggante sëñ Mohamed ak soxna na diggante sëñ Mohamed ak sa diggante moom benn rek la ma sa doon musta dekk ñaar euh, sëriñ bi nekk ci seen diggante moom itam sëñ Mohamed di kilifaam di léppam ñu àndoon nekk benn ñoo tàqalikoo ci lenn ci taxawaayu rafet yu mat sëkk soxna Bali fedd li loolee biñ demee ba lii am itam mu yeesalal ko Cheikh Abdoul Ahad way juróom wii di liggéey boo xam ne bu mës a liggéey rek yëpp a sedd xolam ndax yëpp sëñ Touba waaye bii bu ko ñor la ndax daa fàttali Seydou Khadim fàttali Cheikh Moustapha fàttali sëñ Mbacke Soxna loo liggéey bii jëmu joojee boole yooyee rek lay xoole Cheikh Abdoul Ahad way juróom wi di la ko xoole yow mi itam di way juróom mu yabal si jëwriñam ji nga xam ne moo ko noppal ci lépp fu mu war a dem fu tànka war a dem moo ko fay demal ci njëlbeenu loolu mi ngi lay jaale sëñ Modou Makhtar loolu dama sëñ Fallou xam ne man naa ko jiital naa ko jëkkee bi xew-xew bi amee dikk na sëriñ Saliou dikk na euh, sëriñ bi it sëñ Fallou dafa noppal sëñ bi lépp ndax fu mu war a teew rek moo ko fay teewal wala Cheikh Mouhamadou Lamine nun nun nun jëwriñ yëpp it nun jëwriñ yëpp itam teewe nan loolee ci ndigalal sëriñ bi ndax liggéey bii kat bi mu ko fas yéene liggéeyal sëriñ bi mu Cheikh Abdou Lahad ki seen xel la ñoom ñaar dem boole gam leen boole woon ak maam liggéey bi Daaru Muxti mu ne kon du fi indiwaat leneen loolee fi sëñ Tuubaa sampoon rek loolu lay dëxañaat si ko yeesalaat euh, ndigal loole ak jëf jooje ak pas-pas yooyee moo tax mu tànn leen jox leen loolee ne leen na ngeen ko def su ngeen fa jigéen a xolub sëñ bi sedd Cheikh Abdoul Ahad ñëw na fi liggéey bi ay yoon seet si ko waaye su ñëwee rek gën a bëgg xolam sedd na ci guy yi euh, biñ koy waxit sëñ jëm Jamil mi nga xam ne daa bëgg lu baax lu ne dafay wax waxal ma sëriñ bi nu mu ko bëggee ma defee ko noonu ndax bëgguma faa def loo xam lu may juum lay doon ak bëggam rek laa bëgga a dégg nu mu ko bëggee rek ak matériel bi lu mu seer seer ak lu mu mën doon ak bëggam naa ko xam defal ko fa la mu bëgg su ma sañoon bu ma noppee xolam sedd guy kon euh, kaddu yooyu ma bàyyi ko ci sëñ Moustapha Mbacké Mohamed euh, sëriñ Fallilou indi ko euh, nu ànd ak moom la gërëm di rafetlu sa taxawaay yaag njaboot gi yëpp loolu sëñ Fallou waxoon na naa ko jottali jërë ngeen jëf. naa ngi leen nuyu bu baax. sëñ Modou Mahfouz nee mu ngi leen di nuyu bu baax. di sàkku ci yéen ngeen jottali ma sama nuyoo ak samay cant sëriñ bi neena mu ngi sàkku ci yéen ngeen jottalil ko ay nuyoom ak ay cantam ci Cheikh mustafa Mouhamed Mbacké ci Cheikh Moustapha Mouhamed Mbacké ci dundal gi mu dundalaat cosaan ci dundal gi nga xamante ni Cheikh Moustapha dundalaat na ko cosaan di jëf joo xam ne nee di jëf joo xam ni dafa nuy fàttali yu bëree bëri. daf nuy fàttali yu bëree bëri. ndax li sababoon soxna may Maymuna Mbàkke jóge darul Manaan dikk Daarul Muxti nee na li sababoon way juróom soxna Maymuna bàyyi ko Daarul Manaan ñëw Daarul Muxti Cheikh Moustapha mu tedd ma ci boppam nee na Cheikh Moustapha mu tedd ma ci boppam moo ñëw darul Manaan moo ñëw Daarul Manaan ne ko bu tey doon démb ni ko bu tey doon démb njabootu sëriñ bi bu jigéen gépp dañu nekk fi sama wet njabootu sëriñ bu jigéen gépp dañuy nekk sama wet ci daaru ma naan sori na daarul ma naan sori na dama la faa bëgg a toxal dama la faa bëgg a toxal indi la fii ci kër sa baay Cerno indi la fii ci kër sa baay Cerno ndax nga gën maa jege ndax nga gën maa jege fekk booba la borom daaru di soog a làqu nee jamono yooyu la borom daaru muuti di doog a làqu 1943 1943 bi Cheikh Moustapha dikkee fii. bi Cheikh Moustapha dikkee fii. fekk na fii ci kër borom daaru loon fekk na fii ci kër gu mag la bokkoon di kër borom daaru waaye nekk sëñ moo daaw Balla sunu waajur wa moo waaye nee na Cheikh moo ko féete woon. seen waajur ba moo féete woon barab bi Cheikh Moustapha xamal sëñ moo daaw Balla ne ko. Cheikh Moustapha xamal sëñ moo daaw Balla ni ko. soxna may muuna mii damaa bëgg mu jege si. soxna may muuna mii damaa bëgg mu jege si. ma lool jege ma lool. sëñ Modou Balla sëñ Modou Balla ne ko <clears throat> Cheikh Mamadou Awa Balla ni ko kon nag sama kër bopp gii ma nekkoon kon nag sama këru bopp gii ma nekkoon mooy fi sëñ Abdou Khoudous dëkk mooy fi Cheikh Abdoul Khoudous Mbacké dëkk kon naa ko jox foofa kon naa ko jox kër googa mu nekk loolu baax na rafet na lool Cheikh Moustapha ni sëñ Modou Awa Balla loolu dey baax na rafet na waaye nag damaa bëgg mu dugg fii ci biir kër baayam kër Thierno Birahim gii waaye damaa bëgg mu dugg fii ci kër baayam Thierno gii ci ko sëñ mu Awa Balla daggale kër gi ci la ko Cheikh Mamadou Awa bala daggale kër gi loolu mooy cosaanul kër gi loolu mooy cosaanul kër gi tey kon nag bu ñu doxee kon nag bu ñu doxee ba sëtub Cheikh Mouhamadul Moustapha ba sëtub Cheikh Mouhamadul Moustapha ñëwaat yeesalaat lii ñëwaat yeesalaat loolu ñun ñii njabootu soxna may mun a Mbakke nee na ñoom ñii njabootuk soxna may mun a dañuy fàttaliku jëf yooyee nee na seen xel day dellu ci jëf yooyee nga xam ne loolu itam am na asaar la nga xam ni loolee tubaab bi di wax naan hasard la. ñoo xam ne lii du hasard. lii moom du hasard. ndax lépp ngi soqeekoo ci jëfi Cheikh Moustapha. ndax lépp mu ngi soqeekoo ci jëfi Cheikh Moustapha El Kérim. ak yërmandeem ci njabootu Serigne Touba. ak yërmandeem ci njabootu Serigne Touba. bi yàlla dogalee soxna si wàcc ab liggéey. soxna Baali mii sunu kilifa di taawam. soxna Baali bi doon seen kilifa di taawam. tabax bi soxna may dëkkee woon. tabax bi soxna si dëkke woon moo nekkoon fii moo nekkoon fii nga xam ne 1955 lañ ko fi def nga xam ni tabax ba 1955 lañ ko fi def bi nuy yéwénal mbirum soxna si nee na bi ñuy toppatoo gannaaw soxna si tabax boobu ci boppam tabax boobu ci boppam di fii nu toog muy fii nu toog féete ci soxna Bali féete ci soxna Bali loolu di beneen cër nee na loolu itam di beneen cër kon nag Cheikh Moustapha Mohamed kon nag Cheikh Moustapha Mohamed fàttali nanu jëfi jëfi maamam ji Cheikh Mouhamadou Moustapha fàttali nanu jëfi maamam ji Cheikh Moustapha El Karim xam ne jëfal na ko Cheikh Ahmadou Mbacké Gaynde Fatma nga xam ne jëfal na ko Cheikh Ahmadou Mbacké Gaynde Fatma jëfal na ko Cheikh mo Cheikh Cheikh Cheikh Mouhamed Mbacké Taïf nee na jëfal na ko it Serigne Mbacké soxna loo Taïf waaye nag jëfal na ko soxna Bali waaye jëfal na ko soxna Bali muy léppam ci muy lépp ci moom muy lépp ci moom kon nag bu ko Cheikh Abdoulaye sàkkoo ci moom. nee na kon bu ko Cheikh Abdoul Ahad ci moom. mu jëfe ko jëfin wu rafet wii. mu jëfe ko jëfin wu rafet wii. di jëfi Pastef. di jëfi Pastef. di jëfi yéene. di jëfi yéene. wóor na ma ne. wóor na ko ni. maamam yu tedd ya gërëm nañ ko ci. maamam yu tedd gërëm nañ ko ci. kon nag noo ngi fedd li ñu seq moom lépp. sëñ Modou Mahfouz nee na mi ngi feddali li ñu seq moom yépp di ko ñaanal bu baax nee di ko ñaanal bu baax ci barkeb Cheikhul Khadim ci barkeb Cheikhul Khadim ak barke borom Daaru Muxti borom pàkk bii ak barke borom pàkk bii di borom Daaru Muxti mu àggale yéenay waajuram wépp mu àggale yéenay waajuram sëriñ Mbàkke soxna wépp ak yéenay maamam yi yëpp ak yéenay maamam yëpp te daje ak seen gërëm bu baax te yàlla dajale ko ci ak seen gërëm bu baax am na yàqin ni dana ko ci am incha allah te nee na am nañ ci ni dana ko hmm. di leen seedeel rek sama cant nee na mu ngi leen di seedeel ak cantam ci sama taaw bi di Cheikh Abdoul Ahad ci taawam bii di Cheikh Abdoul Ahad ni mu làqee ngërëmul waajuram di soxna Baali nee na ni mu làqee ngërëmul waajuram di soxna Baali nii la làqee sama ngërëm non nii la làqee ngërëmam moom Serigne Mouhamadul Mahfouz njaboot gépp mooy seen kilifa nee na njaboot gépp di moom mii mooy seen kilifa mooy seen mag mooy seen mag moo nekk ci bunt bi moo nekk ci bunt bi waaye musta juuyoo nun ci lenn waaye nee na day mus la juuyoo ak ñoom ci lenn kon nag loolu yéen ñi nga xam ne kon nag loolu yéen ñi nga xam ni yéen bàyyi koo ci kër waajuram yéen a bàyyi koo ci kër waajuram di kër sëriñ Cheikh ak kër sëriñ Mbacke di kër sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma ak kër sëriñ Mbacke Mohamed maa ngi leen di seereel na gërëm mu ngi leen di seereel ni gërëm na ko di sant taalibe yëpp nag nee na mu ngi sant taalibe yëpp nag ñi doon saytu liggéey bi ñi doon saytu liggéey bi